jere ngeen jëf euh, mbokk yi ñoko ko gisandoo noonu mu doon rek li nga xam ne si patriote yi ña def di ko waajal rek le 2 rek di wër rek partout ci gox goxaan di set setal bu baakha baax loole nag mu doon lu rafet lool ñu bëree bëri daat koy rafetlu di leen apprécier bu baax a baax sa liggéey boobu nga xamante ne si ne jamono ji ña ngi koy bëgg wax ji tuddee Sénégal vert bu xamante ne si rek moom la ñu bëgg ba tax na rek ay citoyen ay patriote dëgg-dëgg fës kee na rek valante wu di rek àndandoo di bale ba nga xamante ne si ne ñëpp ñoo si daal di teg seen bët mu doon patriote yi symbole bu rafet ba nga xamante ne si ne jamono ji amal nañ ko nag di sa bale rek partout fi nga xamante ne si moo di si biir Euh, Sénégal loole nag mu doon rafet lool ñu bëree bëri di ko saluer ñoo ko gisandoo noonu ci ay vidéo ay gox-goxaan yu bare bëri nag si daat koy tàmbali tey jii di wër partout rek di euh, dindi mbalin mi nga xamante ne si moos yi nekk nii kon nak basiru jamaay jaxar fay mu mel nak ab liggey bu mak mo koy xaar nak jamono ji comme nak patriote ni ni koy euh, gungé nak rek le de ndax nak japp na na jamono ji rek dana wara raxas wala sax bale sénégal ba mu set wécc rek bépp mbal mu fi nek ñu daat kay euh, génné loolu nak ñu rafet rafetlu bu baaxa baax ñu ci bëree bëri dik apprécier di rafet rafetlu yoo ci na jamono ji mom lan def ci sénégal gi gox yi bëree bëri daat kay tambali fas na rek bale rek ñu nga mu din balé national nga xam ne ñëpp rek ñoo koy àndandoo mu doon patriote loola nag yaakaar naa symbole bu rafet la te ñu bëri a a a yu bëri bëri ñu daal koy gis ay vidéo ki image partout rek mu daal di tasaaroo si internet bi loole nag yaakaar naa lu rafet la te ñëpp rek ñoo rafet la bu baax a baax su boobee acte